déplacé woon naa am audience bu ma amoon ak monsieur le maire waxit ci situation dëkk bi ak coono yi nga xam ne néew ji doole ñi ngi koy dund. yaakaar naa ci audience boobu maa nga fa nekk man ak moom ak Fallou njaay doon ko sàkkuli di ko tinul néew ji doole ji ngir ndimbal li yegg ci ñoom wax ko it sama programme tegal ko feuille de mu sàkk woon ma ñëw tey ci émi ci kii bi ci réunion bi. bi ñu réunion yëpp it maa ngi woon ci biir déjà ni mu wax ci nin lañ war a distribuer ndimbal li dal na sama xel bu fekkee nañ wax noonu lañ ko nar donc nag ñi nga xaar commission bi nga xam ne ñoo ko war a séddale ba xam liñ wax ci biir ak li ñuy jëf dana wuuteem déet mais première bi doom ñi ngi sëlee acte bi parce que wax dëgg yàlla acte social la mais nag yàlla na yegg ci ñi nga xam ne ñoo ko méritool daal. Mhm. man li ma ci xalaat mooy ñu dem ci sañcaan yi ci quartier périphérie yi parce que sonn nañ te kenn dimbaliwu leen ñu néew ñoo leen fu fekk ak ndimbal ñu recensé ñi nga xam ne ñoo ko yellool ñu jox dimbali mais ñu bañ ko séddale ci séddalut yaa ma neex wala ci mbirum politique. wala ñu di ci wut base politique wala mbooloo ñu xam ne mbirum social la nañ ko jox njaboot gi nga xam ne ñoo ko soxla parce que population bi sonn nañ te ñi ngi ci kër yi il faut ñu fekk leen fa jox leen dimbali loolu laa conseillé monsieur le maire dégg naa ko ci biir salle bi kon donc maa ngi am yaakaar ne li ñu wax danañ ko def mais ñun it ñu ngi toog di digloo ba xam mais li ñuy njëkk a def ci alerte daal mooy nañ fexe ba li jógee ci ndimbal na dem ci ñi ko yelloo ndax ndimbal ñi ko yelloo rek ñoo ko war a ñoo a jëlal mu mel ni euh, xeetu ndimbal yi ñu bëri dañ daan joxe ay madaara ko mu mel ni lii tamit dund bi nit ñi soxla lool lool waaw xam nga fi ñu toll fi situation bi toll mooy nit ñi dañoo xiif madaar naan baax na mais nit ki bu raxasoo daa war a lekk donc nag li ñu def nii jox leen ñu raxasu jox leen ñu lekk aussi loolu acte bu baax la mais ñi ngi saluer acte bi di ñaan aussi ñëpp roy ci commune bi ñi nga xam ne ay bàyyi defal yàlla lañ ci dëkk bi te yore teraanga sëñ bi na bunt bi na ci ñëpp participer ndax acte social la